sargal waaye tamit di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a safoo di ñu seetaan fii ci Equivox TV mbokku téléspectateurs yi dalee na jàmm ci seen journal de l'arène xam naa ne nag ma waaye tam maa leen rawoon macha allah tey naa la. maa ngi lay da ngaa dama la. waaw waaw non maa gën a namm nag <laughs> yàlla xam na ko maa la gën a namm. Ah. xam nga Babacar ak Ami moom. Hmm. loolu du tey démb la dafa yàgg. macha allah Ami borom ëttu maam. Hmm. Ami borom Gaye Ndiaye. Hmm. ah doomu séréer bi macha allah maa ngi lay dégg jigéenu Babacar <laughs> mais tamit di nuyu Oulimata Seck suma rakk yooyu tamit macha allah tey dafa am ngant moo tax loolu tax voilà mm. <laughs> di nuy ñuy seetaan ñëpp ji Equivox TV tamit tamit dëgg voilà mm. chers téléspectateurs bu baaxee ñu dem seetaan revue des titres daal di dellusiwaat asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah mardi 30 de 2021 dañuy ñëw ak yéen ci likkaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di sunu làmb nag tey xëtam mu njëkk lam ci xëy fësal maanaam la marodi de Pikine Balla Bèye numéro 2 moo xëy nag tey ngar daajoo sunu làmb di fa wax la mu xëy di leeral nag dina la leer nañ moom fi mu nekk ni daal maanaam jëlul ay bëtam teg ko ci menn mbër ni kii la bëgg bëril wala kële ndax mu parcours bi mu def ci làmb yaakaar na ne dootu ko def waaye fi mu nekk ni nag moom pare na physiquement mentalement ak moralement ngir bëree nee na képp koo xam ne ni daal ñëw nga jàpp na ni su arbitre soufflé dana defante ak yow ba mu saf-sap Balla Gaye numéro 2 mu xëy tey yëglekaay bi di sunu lamb dalal ko mu séq ak ñoom waxtaan wu yaatoo yaatoo yaatoo nee na daal amul adversaire boo xam ne nii daal maanaam jaaxal na ko wala mënta daje ak yow waaye ni kii la wala kële ku ci ñëw rek pare na mu ngir defante ak yow yemu ca wàllum football tamit wax na ca ndax jàpp na ne moom footballeur la woon boo xam ne bu mag a mag la woon ndax nag ne nekkoon na ab góol fa nga xam ne moo doon ca bokku jëf ak sotraak ak fa nga xam ne moom moo doon Las Palmas ca Géejawaay Balla Beye numéro 2 moo xëy tey ci sunu làmb dafa wax lu mel ne ki noonu keneen koo xam ne ab numéro 2 la ñu naan ko Balla Gaye numéro 2 moom itam daal la mu xëy tey di ko weddi di ko leeral yëglikaay bi dina daal ñu nga jële TV ak Lamine Seck moom Balla Gaye numéro 2 la mu xëy di ka mu xëy di tontu du kenn ku dul ministre de la justice di monsieur Malick Sall ma nga xam ne fan yi ku ne gis na ne ba mu dalalee mbër ya bañ ci génnee toog ay fan xëy na wax ne mbër ya ñu ngi koy ñaan daal ngir daje ak président Macky Sall Balla Gaye numéro 2 nag dana wax jooja amul tey suba waxi noppi ne na ministre ba moom la mu wax moom monsieur le ministre du nekkul loo xam ne ni lu tega la ndax ne na man Balla Gaye 2 Modou Lo Gris wax daje ak ka nga xam ne moom mooy président Macky Sall nee na loolu moom nan leer nañ moom Balla nee na tamit li am ba des ñoom yàgg nañoo am seen teraanga di ko ñàkkante te xamuñu ki nga xam ne nii moom mooy Macky Sall wala Malick Sall nee na kon daal waxal leen lees loo xam ne ni ñoom waxuñu ko ñaanuñu ko neexu leen Balla Gaye numéro 2 moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu leen loo xam ne nii wala keneen koo xam ne ni moom soriwut Balla Gaye numéro ak Balla Gaye 2 di Eumeu seen ñoom ñaar ñu war a bëre am na koo xam ne nag tey moom yëglikaay bi xëy na jox ko ci ab laaj muy Moustapha Thiam ñu naan ko Gaston nekkub animateur bu lamb fa nga xam ne mu di ca set ti wala bokk ci Africa 7 moom daal la mu xëy xamle ne kii di Eumeu Sène moom loo ci mën a dégg moom fi mu nekk nii li ko war lenn dong la jéem a gañe ki nga xam ne ni moom moo di Lac de Guiers numéro ngir nag mën a jubóowaat ak ay supporteram ak ña nga xam ne nii ñoom ñoo di ay soppeem Lac de itam jàpp na ne ndam moo ko war ngir mu gën a mën a taxawaat ci làmb ji ñeneen ñoo xam ne ni ca combat booba wax nañ ca ginnaaw démb ba sunu làmb demee fa nga xam ne moo doon tennis ca France ñooñu jàpp ne moom la ñu jàpp ne moom la ñu gis ci moom ndam waa mbuur itam dal daal daa mel ni tontu nu waa nis wet di wax jooju ba mu set wecc mbuur daal micro trottoir ba fa yëglikaay bi def ñoom la ñu jàpp daal lenn la ñoom ka ñu gis daal moom moo di Lac de Guiers daal la ñu jàpp ne bu dee wàllum ndam moom ci moom la ñu koy xaare yëglikaay bi moo xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu yëglikaay bi ba tey fa nga xam ne wala boog rubrique ba nga xam ne moom mooy rubrique Leewtoo ku mu fa xëy dalal nag moom mooy Alioune Badara Diouf di ab promoteur làmb lamb yore Vox naa moom nag daal ñu ngi koy laaj combat bi ko gën a marqué bokk na ci nee na daal combat Gris Bordeaux ak Eumeu Sène ba amoon fa nga xam ne moo doon ca stade Demba Diop ci atum 2011 nee lii daal marqué na ko lool lool lool lool bu buñ fi jógee ba tey dañuy continuer ak yëglekaay bi di sunu làmb ñëw na tamit te la nga xam ne nii moom moo di ca l'exemple ba ak li nga xam ne amoon na ci weekend bi nga xam ne moom la ñu génn moom sunu làmb bu dee ca Adrien Senghor moom ka fa dicté ay luwaam wane fa boppam du kenn ku dul ngor ndef fay daal moom moo fa imposé talam wan fa gaaya la ko neex jël tournoi ba waaye fa nga xam ne nii moroon ca Joal ak waa Leewtoo production moom ka fa wane boppam du kenn ku dul ka nga xam ne moom moo di Doudou Sané ca luur ba daal moom moo fa wane la nga xam ne moo di boppam jël la nga xam ne ni moom lañ fa tegoon ba tey bu nu continuer fa nga xam ne ni tamit moom moo doon ca gaal gi Zambala ba tey mook Abdou Ndiaye ñoo fa wane seen bopp jël luur ba ak la nga xam ne ni moom moo di lese ba lool loolu sunu làmb xëy tey ñëw andil ñu lu mel ni ki noonu bu ñu fa jógee dañuy dem fa nga xam ne moo di ca record record moom la mu xëy ñëwati moo di combat 4 avril bi war a am ci dimanche ji nu mel ni ki diggante Eumeu Sène ak Lac daal yëglikaay bi na juróom-ñetti defi mu ngi leen di xaar sunu record moo xëy tey gise noonu Fass ak Ndakaaru tamit seen ànd ba nu war a yëg likaay bi record xëy na tey ñëw ci ka ca ñëw nag du kenn ku dul Abu Nduur jàpp na ne boo bëggee dégg-dëgg daal li am ba des ka nga xam ne nii moom moo di Abbas Ndoy moo fas yéene nekk président ba Kati Diop coach Tafa Gueye numéro Tafa Gueye numéro un nekk adjoint loolu yëg li kay baa xëy ñëw wax nu ko kii moom daa jóge ci békri bëgg a dem ca beneen muy faraamu parcelle mbooloo ma ma ngeen xamul mu nekkoon ci écrit ba ñu daan wax parcel mbooloo léegi nag teñ na bàyyi na ko dem ca jàmbaar wrestling academy ba nekk ca parcelle mel ni ki nag loola moom balaa mën a nekk rek wala mu sotti cent pour cent moom faw mu génn lu toll ci un million de francs jox ko fa nga xam ne nii wala boog jox ko ja nga xam ne ñoom ñoo di waa parcelle mbooloo yëg li ba moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ne ki noonu mel ne ki nag yëglikaay ba tey yemu ci xamal nañu ne daal Franc renouvelé na licence am ci turu la nga xam ne nii moom moo di parcelle mbooloo yëglikaay bi record ba tey moo xëy tey ñëw toppal ñu lu mel ne ki noonu ñëw nag ci journal suñu làmb Babacar ci xëtam bu njëkk kañ fa mm. gis rek moo di Baboy mm. nee daal fi mu nekk nii moom pare na taxaw temm waaye nag fixé wul kenn pour bëri ak moom waaye daal physique am daal fi mu nekk nii pare na lu ñëw mu <laughs> parce que loolu moom defe naa su su su dikkaatee pour war a bëree mm-hmm. defe naa tey buñ ne Baboy ngi laaj kii wala kële mm-hmm. ah mën nañ xel war na ko mën a bañ a nangu su ko neexee parce que lu tax mooy loolu tracé si làmb la fi mm-hmm. mu jaar ci làmb ñi mu bëreel ndaanaan yi mu daan yaa ngi dégg bis yi mu am ci làmb defe naa doo ko am ba yegg si fii tey defe naa ne ah di laajat laajati benn mbër mm-hmm. moom kay xanaa lenn amee ames na droit laaj ko nag mm-hmm. maanaam mu maye sens moom loolu mën na nekk parce que mm-hmm. li wane si làmb moo tax li ci des nag mooy loolu li ñuy wax rek ami sa mattilal yaa ko xam te géntug jàmbur kenn mënu koo nettali loolu mooy wàllum physique am ak dooleem moom mais entraîné di yëg boppam bu ne apte na pour bëriwaat defe naa loolu moom moom la yaa ngi dégg te bu keroogee itam buñ maanaam bu demee ba war a bëre mhm. ña ko war a jox licence defe naa dinañ ko saytu ba xam ndax kii apt na pour bëre wala déet mhm, bu apte nag pour bëre moom mhm. waxal ko boppam defe naa ne baaboo itam du waxi caaxaan laa foog kon yaakaar naa li ci des daal mooy bu fekkente ne ah CNC may na ko yoonu mu war a continuer carrière mu bëre bu apte pour bëre bu gisee adversaire pourquoi pas duñ ko jox bu bëri. te muy dëgg. xam ah. naa daal arène bi yaatu na ku nekk xëj na ci. waaw ah, yaatu na kenn du ko xëccoo. waaw ku ne xëy waaye nag am ñu ci de. <laughs> maa ngi ah maa ngi yow nga ne mënuñoo bëri buñ bëree ñu gaañ. déet ñoom ñoom ñoo tax. Ah, may wax bëri. Babacar yow boo bëree dañ lay kii de. waaw doole yemul <laughs> te muy dëgg. bu jógee foofu ba tey rek ci suñu làmb Balla Gaye de mu mel nii rek. dañoo xam ne woon na doon demande ngir gis ki nga xam ne moo di euh, ministre Malick Sall mais mu xëy rek di ko weddi ci suñu làmb non dañ doon demandé pour gis président Macky Sall. voilà mhm. mais du sax Balla Gaye 2 mais au seen seen groupe bi bokk. Mhm. association bi xam nga. Mhm. fan yi fi ministre de la justice demee woon France 24 xam le ne. ñaxtu yamoon ci mbedd mi. wala mbër yi la. mbër yi dañu defoon benn réaction wala axlu làmb. mais réaction bi taree nag. ay nit dox ci tànku jàmm suñu papa xaarim sam bekaay bekaay mbay ba mbëri nangoo sol seen daal ànd seen président Gris dem toog ministre de la justice monsieur Malick Sall muy Gris Bordeaux Balla Gaye Eumeu Sène Modou ak yeneen mbër léegi nag bi ñu jógee ci rencontre boobu bañ na jàmm am na a ah, ministre bi defaat beneen sortie xam ne ne mbëri sax ñu ngi koy demandé ngir daje ak président Macky Sall. loolu nag mu ni naqari na leen lool. Balla Gaye nag ci la waxee ci micro Walf TV ne loolu amul tey suba waxi noppi. ñoom demande demandé wuñu daje ak président Macky Sall. parce que ñoom nekkuñu fi pour di demande daje kii que ce soit. ñoom ñu ngi seen liggéey. yàlla ngi leen di teral. ñu ngi jàpp seen njàmbur kon ñoom bu leen kenn waxal luñ deful. loolu nag liñ ciy jàngataat rek mooy ministre bi. ah xawma lu xew ah. mhm. mais itam maladresse yi bëri na. vraiment kilifa la. Mhm. xam nga justice du am réew ci ay fo. Mhm. du du ay fo ci am réew ami suñ la ko dénkee wax dëgg yàlla defe naa ne moo demee may génn di wax war ngay wax li nga xam ne ni lu nit a jàpp la. ndax tey man ak yow. yàlla bu mu am bu ñu amoon tey problème. justice la dem. ñu àtte ji ñu. parce que mënoo fajal sa bopp mënoo fajal sama bopp. kon nag yow bu ñu la jëlee bànqaas bu toll noonu dénk la ko ci am réew. war nga yow xool ba xam ndax li ngay wax méngoo na yoon ak li war am wala déet parce que mm-hmm. justice lañ ko dénk moom monsieur Malick Sall mm-hmm. te itam nag maladresse yi wax dëgg yàlla comme ni ma ko waxee. Mhm. mu ngi bëgg a ëpp daal. dëgg la xam mm. naa ne daal jël na mbëri temps yi. ah doy na waar de foofu ñu jàll ci nga xam ne moo di Moustapha Thiam nekk animateur de lutte. Mhm. ñëw na ci diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers 2 xam na nag Eumeu dafa jógee ci defet bu métti. Mhm. fi mu nekk nii daal pour réconcilier waat ak ñi nga xam ne ñoo di. Euh, fansam foog mu jéem a ak Lac. waaw du man a ñàkk parce que li tax mooy Moustapha Thiam ma koy nii di ko ziar suñu confrère la nekk ci Africa 7. di liggéey lu am solo si làmb Thiam tamit ñu naan ko Gaston waaw ah, defe naa ne loolu mu wax am na parce que tamit Eumeu Sène ku ne gis na ne defet bi mu jóge woon dafa metti trop trop trop mhm. moom mi ko dund xam na ne metti na rawatina ay soppeem mhm. a a mën a wanaat boppam mhm. yaakaar naa moo tax Moustapha Thiam loolu mu wax tamit xel na ko nangu ko maanaam pour jubóowaat ak ay soppeem ay supporteram defe naa dina ci bokk combat bi mu jéem ko gagné yaa ngi dégg waaye nag terewul taxul ne da ko war a gagner force parce que li tax mooy dafa am adversaire mu ko seqal. te adversaire bi li ëmb bëgg loolu moo ci ne muy combat bu metti waaw te ku ci ne bëgg nga ndam. <laughs> te muy dëgg waaw. <laughs> voilà ba tey rek ci combat bu Petite Côte bi ñoom def nañ fa micro trottoir waaye lañ gis rek dañoo yaakaar ne Lac de daal moom moo mën ki nga xam ne moo di. Eumeu Sène waaw loolu day gis-gis la xam nga micro-trottoir mooy gën laaj ñi seen xalaat te ñi tamit ay sénégalais lañu <laughs> dañuy seetaan làmb mhm. parce que démb boo xoolee micro-trottoir bi yëglikaay bi mu ngi ko njëkk a defee par fa nga xam ne moom mooy France ci mhm. Nice ñooñu Eumeu Sène lañ jàpp mhm. tey gis nga contraire bi moo am Mbour mbuur lag lañ gis loolu moo lay wan xam kon gis-gis day wuute mhm. waaye nag lu ci mënti xew rek mooy mhm. yàlla nañu yegg ci bis ba ak jàmm mhm. ñu bëri ko kële meilleur gañ waaye xam naa daal combat moom xalaat naa ko mm. mm. a ah, de <laughs> voilà bu ñu foofu ñu dem seet ki nga xam ne moo di Aline Badara nekk promoteur de lutte mm. moom nag bañ ko laajee rek la ko gën a ci arène nationale moom nee combat gris ak ëmb bu 2011 ba. waaw Alioune Badara Diouf di suñu DC di DC Vox Arena. Ah. kenn du moom Alioune Badara Diouf. <laughs> waaw wax dëgg combat boobu defe naa ne képp kuy amateur lamb la ngay dund lamb la. Mhm. Eumeu Sène Gris Bordeaux. Mhm. yaa parce que combat woon boo xam ne itam combat woon ci biir combat yi. Mhm. loolu moo lay wan ne rek kon ah waa Vox Arena tamit dañuy dund lamb. muy combat bu neex a neex neex ñu bëri ñaar yoon ay combat yoo xam ne ay combat de haute facture la muy Eumeu ak Gris. dëgg la bu ñu foofu ñu dem seeti journal record ñoom ñu daal ñëw ñu ci huit les huit défis de Lac 2 ak Eumeu Sène. waaw boobu lu ci mën a dégg am na huit défis yooyu na ko yëglikaay bi jàngate. Mhm. dëgg la de am na huit défis wala mhm. que ñoom ñaar ñii muy Eumeu ak Lac. ami mhm. bi ku ko ci perte dina metti ci yow. man maa la wax lii. ku ci bi. non dina metti trop ci suitu carrière. donte sport la ñu nekk nag il faut que mu match nul ak vainqueur yooyu moo ci am. Mhm. waaye ku ko ci ñàkk moom wax dëgg yàlla moom. Mhm. dina metti trop ci yow mais bon ñoom nag duñu ay xale tey ci làmb wala su sport Sénégal parce que ñu ngi ci niveau bi gën a kawe. Mhm. yaa ngi dégg mais nag sport la ñu ngi ñaan daal yàlla lañ ci yëg gëlëm gañ rek. amiin euh, ba tey rek euh, écurie Ndakaaru ak fas ñu war leen fusionner waaye mbir ma daal dafa yéex Babacar. ah waaw xam naa xay na ay quelques réglages la ak yooyu parce que comme déclaré nañ ko fi ay weer depuis boobu ba tey ngi bëgg a yàgg. te gisaguñ leen ñu ànd entraîné gisaguñ leen ñu bokk benn taabal itam ah kon xëy na am na lu nekk ci biir waaw loo xam ne nii olof ne na nag sëpp moom la ko bënn mu nga ci biir xëy na ñoom ñoo xam la tax dëgg la euh, ba tey ki nga xam ne nag moo di Franc war a jógee parcelle mbooloo dem rejoindre fi nga xam ne moo di jàmbaar académique mm-hmm. moom lañ ko ca laaj rek moo di un million waaw loolu ndax am ah, mooy boo waree dem parce que léegi moom defe naa ne dem nañ daan quitté équipe xëy xëy rek ne bàyyi naa dem ak léegi bokkatul laa mel ni léegi am ne yeneen sartu yu ñu tuddal ak yooyu ay sanctions yu la si fekk defe naa itam ah loolu ah defe naa bu fekkente ne noonu ñu ko waxee noonu la demee maanaam un million lay joxe pour mën a dem moom mhm. ah moom mooy xool rek ndax jaral na ko wala déet mhm. parce que tamit mbir ma. xam nga mbër da doon nekk ci ci. écrit rek tëb tëb rek. kite dem waaw loolu nag la ñu dem ba ne loolu. na léegi waaw moom la nga a doy yi nekkoon yi na nga jaar ci yoon wi boo ci jaarul lii moo la ciy fekk. xëy na moo waral lii am la waaw. voilà xibaar yi jaar fa ndar képp Babacar looy tàggatoo noot man dama xam nga làmb nag daa bokkul làmb nag dafa neex de dafa neex làmb. Mhm. parce que cosaan Sénégal la gis naa barki démb waykat ba di la waylu rek. waaw mbay ak kenn du moom. borom bi farba dégg naa ñu bëri seetaan ko la a ñàkk xolu nit ñi baax sax nit ñee baax rek amit ndax Babacar. defu nga nekk ci sama xol ba ban. ndeysaan merci waaw non non xam naa loolu. mais xam nga nit ñi ñoo baax parce que Babacar dafa gudd lu war a tax sa nit di ko dugal foofu mais nit ñi xëy na ñoom ñoo baax. Mhm. vraiment nekk ay gor mhm. parce que tey dama naan defaguma si làmb dara lu war a tax nit mhm. bëgg ma mhm. parce dama nekk ndaw di góorgóorlu parce que defe naa làmb tey ñi ci def ñu mën a tàmb mooy suñu papa Bekaay Mbaye suñu papa Xaadim Samba mhm. ay Malick Thiandoum suñu grand Lamine Samba ñooñu ñoo def ci làmb tey loo xam ne ñu nga ca au sommet ba waaye ku mel ni Babacar xam nga apprenti la buy jéem ah mais nag bu leen ñi bëggee itam du mën a def lu jaajëfal leen leen koo xam ne rek koo xam ne du ma di jóg waaw mhm. parce que su ma soppe la su ma xarit la sama doomu ndey la taalibi sëñ fàllu boobu maa ngi koy ñaanal ci barke sëñ fàllu yàlla na ko yàlla yokk barke yonent bi sallallahu alayhi parce que démb defati na lu am solo mhm. gp la yónneeti mhm. Maroc Gabon ba Sénégal mm. mu ñëwati ci man ay chemise ak ay dàll kon sëñ Fallou abu masa fay yàlla na la yàlla fay barke yonent bi di nuyu ñëpp si di nuyu Ami Diouf di nuyu sa mbokk si a foogale séréer mais xëy sim may sim naa nuun waaw acca demal waa Gandiaye nuun foofu may sim naa nuun acca demal waaw ah. dama noonu la daal ba bàyyi nga def na yéen baaw voilà mais nag du ma quitté tey man itam te gërëmoo ki nga xam ne moo di Cheikh Bass Wade. waaw waaw kooku moom vraiment. gis naa ne sama soppe la chaque jour daf may laajte non nagu ma nag. Ah. xëy na rek ndax ma def ci xol bi ah, comme ni ma la defee ci xol bi. Ah, waaw Cheikh Bass xolal yow man ak yow. lépp nii lay demee saa su nekk moom téléspectateurs yi maa ngi leen di gërëm yéen itam amuñ seen fay ndax nag buñ toogee fii. yéen a tax luñ mën di def rek euh, dañ koy def ngir di leen bégal saa su nekk fii la ñuy jaaree nag ndar kepp xibaar yi di leen jox dig ndaje ëllëg incha allah ci Equivox TV la télévision à portée de